al imam Lamine Diouf moo nekk nii fii ci Colobane lay nekk ñoom imam yooyu ñoo ñëwoon tey ziyaara si la dalal la ci ngan gi nga xam ne ni moom ngay def ñii dañuy yëngatu ci mbirum kaso yi di défendre li nga xamee ne mooy peine de mort nee nañ dañoo bëgg mu dellu siwaat imam <laughs> Balla Thiaw waaw imam Dame Ndiaye bisimilah kàddu yu gàtt après nga jox imam Balla bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi ngi lay nuyu. di la ziyaara di la ndokkeel di ndokkeel jullit yi ci yow ñu ngi bëggee sa teewaay fii ci ndakaaru wax dëgg yàlla sa yoon wi xéewal dong la ngir jullit yi dëgg la am na taxawaay boo xam ne sa juddoo la ko may te mooy jiite gi nga jiite njabootu xaadim rasul waaye am na taxawaay boo xam ne sa la ko may te mooy jiite gi nga jiite jullit ñi jullit ñëpp nangu nañ Mbàkke nga nekk seen kilifa yàlla na yàgg yàlla na sax yal na ci yàlla defal ndam jullit yi kilifa dong nga leen manqué lépp lu ñu war a am pour dem ci kanam lépp lu ñu war a am pour ñu rek leen lépp lu ñu am war a am pour ñu def lu ñu bëgg am nañ ko ba mu des kilifa Mbàkke yaay suñ kilifa jàppaleel jullit yi ci li manqué ci réew mi mu am fi mën na fee am jullit yi soxla nañ ko Mbàkke salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi Mbacke ñu ngi lay ziar ci turu collectif des imams et bonne volonté suñu yëngatu nag Mbacke ci njaboot gi lañ suñu yëngatu yëpp mooy aw ci kaso yi jàng jàngale fexe ba ñooñu yàlla dogal natt dal leen te amul ku leen taxawee ñun ñu jaayante yàlla depuis 2006 di na ñoom di liggéey fexe ba buñ génnee mën a am fu ñu féetewaat société bi loolu nag yàlla def nañ ci ndam depuis ay ati ati at fan yii nag dafa am coow lu am Mbacke muy fitna yi ñu dégg agression bi rey gi. boobu yàggu rek ndaw soosu ñu fekk ci Pikine boom ko ci anam yu méttee méttee métti métti population yi nag Mbàkke jaaxle di jooytu rek ñu ne nag ñun comme ñu ngi ci kaso bi xam nañ ne jéem a yenn combat bi bu ñennoo combat balaa ñoo def dara dem ci kilifa yi Mbàkke dañ nañ Kaolack ci xalif général bi jaar Touba fekk yaa ngi Ndakaaru ñu dem Kokki dem Louga Thierno Bachir dem fépp ba Tivaouane seen yoon euh, Fuuta Dalo ñu dem fu ne Tivaouane Ndiassane fépp bi ñu yëgee yaa ngi fi nekk ñu nañ fexe ba sëñ balaa dem Mbàkke recevoir ñu ñaanam ak conseil am li bëgg daal mooy peine de mort bi Mbacke dellusiwaat lay waat da ko fi jëloon 2004 biñ ci boomee Moustapha Lo ak boobu na euh, waaj euh, ka nekkoon Thiès Demba Diop ñaaraatul peine xeexuñu xuloo liñ bëgg daal mooy nañu ko delloo si rek ba ko rey ñu rey la te loolu ba amee njaboot gi am jàmm njaboot gi Mbacke sonn nañ jaaxle nañ tiit nañ loolu daal mooy suñuy tànk def nañu ay pétition liggéey boobu ñu ngi ci te incha allah taala fuñ ci toll ko yëg. loolu daal mooy sunu tànk Mbàkke nga def ci ñaan ñi nga am kontaan ñaan yàlla yàlla dëgëral la taxawaay bi gis nag sa coono yàlla bu mu neen incha allah taala. sëriñ bi nee na wa rahmatullah nee na mi nga amati mbégte mu rëy a rëy. mu ne ci kilifa yi imaam yi nekk ci kanamam. mu ne mi ngi ciy a sant suñu borom bu baax a baax. mu ne li ci jiitu mooy sant leen ci seen taxawaay. mu ne ndax loolu mooy li ji ci diine ji. seen taxawaay ñëpp lañ ko mu ne mu ne ndax seen taxawaay ñëpp a ko bokk. ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax. nee na mi ngi leen ciy sant bu baax a baax. mu ne di leen gërëm bu baax a baax. di leen ñaanal bu baax a baax. dégg nañ kàddu yi tam. mu ne dégg nañ kàddu yi tam. dégg nañ ko bu baax a baax dégg nañ ko bu baax a baax. incha allahu noo noo yàlla boole nañ ci xol yi. mu ne incha allahu yàlla boole nañ ci xol yi. kon nag lu ñu ci mën suñu kéem kattan mu ne lépp luñ ci mën seen kéem kattan ànd ko yéen mu ne dana ko def incha allah mu ne mi ngi leen di sant di gën a gën a gërëm bu baax a baax mu ne xolam sedd na ci taxawaay bi mu ne yaakaaram it dolleeku na mu ne xelam it gën na cee dal jërë ngeen jëf xool kan ko jox kan ko jox benn loxo. maa maa maa ngi am yéene jox ko sama ñaari loxo. mu ne na ngeen xam ne kenn ku am yéene jox ko benn loxo mi ngi am yéene jox ko ñaari loxo na ngeen xam loolu incha allah. boole ko sama jëmm lépp mu ne boole ko ak jëmmam ak léppam rek. mu ne ak xol bi ak xel mi. incha allah loolu lépp dañ koy fas yéene def seetlu suñu suñu laxasaay dañ koy feddali suñu laxasaay mu ne loolu yëpp daf koy fas yéene feddali ay laxasaayam ànd koog yéen ànd koog yéen fas yéene liggéey lislaam fas yéene liggéey lislaam suñ kéem kattan suñ kéem kattan suñ Tuubaa loolu rek ci loolu rek la nekkoon mu ne sëñ Tuubaa ci loolu rek la nekkoon mu ne bi nga ko gisee ba mi ko noppee gis liggéey lislaam rek mu ne ci liggéey lislaam rek la nekkoon moom la ñu fi bàyyil mu ne loolu nag moom la ñu fi bàyyil mu ne danañ ko def suñ kéem kattan def ci suuf lépp. mën a def ci suñu lépp. fas yéene ko gën a ànd ak yéen. fas yéene ko gën a ànd ak yéen. gën a gën a gën a mën gën a liggéeyal a mi defoon xaatimul anbiyaa yi yaa dellu def xaatimul awliyaa yi yaa yónni woon Muhammadul Makkiyu dellu yabal Muhammadul Makkiyu